waaw gars yi ñu ngi leen nuyu di leen jaar yéen ñi si World Sport ñu war a ñëw yéen ci benn vidéo wax ci li nga xam ne Habib Beye wax na ko ci affaire Sadio Mané ak droit jaune bi mu nekk kàddu yoo xam ne franchement ñëpp ñu ko doon xaar mu nekk prélude extraordinaire moom Habib Beye euh, dafa jël ki nga xam ne mooy témoignage mooy Sadio Mané mën nañu wax xaw a asaanoo ci nga xam ne mooy roi roi Sané mais laata laata ñu gënoon dañuy bi pour ngeen fi vidéo au taaral fii ci nga gars yi Habib Beye li mu wax leer na comme ni nga xamee toujours dajal ay position yu extraordinaire ci joueurs africain yi di défendre dara noir bi ah, ak ay arguments yu solide ak ak benn xam-xam ak benn communication boo xam ne fu mu ko defee rek ku nekk ci dëgg sa fit dana jóg moo Habib Beye dafa taxaw ne carrément Roi Sané saa kenn rek ci moom daan dama taxaw traité Sadio Mané la noir merde noir bu nga teekuwul dara maanaam saaru paloor yoo xam ne par violence yu kenn xamul mën a jur te alors ko nag bàyyi na ñëw rek suspendre traitement ne à cause dañ ko wax ndax nit wax wax bi jugul xol ba nit mën a réagir la jàpp naa ne wax bu nekkul ndaw kon pour pourquoi pas tamit gisuñu ay daan ci Roi Sané comme ni nga gisee ci Sadio Mané mooy nag lii baal mi dañ ko warale benn yoon mu jeex loolu nekk loo xam ne dañu mel ne dañoo favoriser kenn gi ki néewal kenn ko doole loolu boo ko defee rek ñu ngi yàq seen effectif indi loo xam ne seen club euh, du nekk lu baax. ne daa tax seen club benn nit ku ñuul fu bëgg demee it dañ mel na euh, euh, euh, joxuñu gën a nit ñuul ndax l'instant star mel na Sadio ak benn bijou ak benn gaynde ak leader boo xam ne nga am ko sa club nga war koo def or def ko wurus mel na koy fooye loolu mën a yàqal li Bayern nii kon Habib Beye li mu wax lu leer la franchement Bayern lépp loo xam ne ci problème bi ñoom ñoo gën a aggravé ndax c'est pas Sadio Mané bàyyi Leroy Sané loolu. kenn d'accord te kenn ko da koy waxal dëgg da bari na ay leen gars ay consultant ay commentaires yoo xam ne Sadio Mané ndax xam nañ ne franchement euh, euh, euh, sanction bi jaarul yoon te xam nañ Sadio Mané ak discipline am ak yar gi ne ci moom waa bàyyi na doon dañu naan photocopie Sadio Mané am waaye yooyu yëpp ay wax bakkan la mais tegul fen mais Sadio Mané bii ko wax xam naa wax na bu rëy dootu la Sadio Mané du génn di ko wax di ñàkkal bu faydam daal moom Sadio fajal na ko boppam afrique gépp la ko fajal ku seen xol sedd na ci cette pandémie nga ana ji yaana kon gaay lu ma ne ko wéré wéndi abonné ngeen ni commentaire di wax seen xalaat ci li Habib Beye wax ak ñoom ko gisee fii ci Rmah pour wéndi abonné di commentaire merci beaucoup amina bu baax baax